Nous, depuis le 2 mars nous avons ci activités euh, je dois vous dire que la commune a pratiquement 45 points de lavage dispositif Nous avons aussi euh, mobilisé des ressources de la mairie Nous avons mobilisé 118 millions d'euros. d'ailleurs nous avons euh, délibération Nous avons aussi 100 millions d'euros dañ lek ak yoyu ensuite 18 euh, millions yi dañ koy jëmal jëmale ci médicament parce que jàpp nañ ne aussi eh, du du du du dund gi rek lañu wara faratal war nañu renforcer structure sanitaire yi nga xam mom mo nek nekk sunu sunu compétence ensuite état bi aussi euh, jël na 3574 ménages yo xam ci commune bi la 969 yo xamante ne ñoo nok nek ci RNI bi muy

leneen li aussi li nga xam ne état bi mënu fa yegg ñu fexe ba commune bi yegg fa am na beneen pàcc boo xamante ni ay don ak ay ay appui la yu ville de indi yu ay partenaires indi yooyu aussi ñu fexe ba yegg ci ci kii bi ci ci askan bi jàpp nañu ne daal ñun fi ñu toll nii commune bi yàlla mi ngi ñu dimbale ñu ngi continuer dugal suñu loxo ci xeex bi def ko ak dal ànd ci ak képp koo xam ne autorité la ci dëkk bi mais aussi ak OCB ak association yi ak képp ku ci war a bokk monté nañu am mettre nañu en place suñu suñu kiiwu euh, aide alimentaire ensuite tey jii ñu ngi euh, defar nañu aussi jot nañu suñu délibération pour ndimbal bi euh, am na sax ñu defe ne woon dafa yéex mais jàpp nañ ne mu yéex te jaar yoon moo gën nga topp ci ay procédures yoo xamante ni ëllëg mën na la rattraper moo taxoon ñun en tout cas ñu xaarandi ba lépp luñ ci war a def ñu def ko ci ba jébbal ñu kayit bi ñun ñu mën a continuer euh, liggéey bi mais jàpp nañu ne daal commune bi moom wax dëgg yàlla et puis loolu maa ngi ci rendre hommage acteurs yëpp commune bi moom wax dëgg yàlla ñu ngi fexe ba nu ko mënee ñu moytu feebar bi dugg na fi nag actuellement dugg na ci zone yi euh, ñëpp a ngi am jaaxle mais nañu respecté rek geste barrière yi fexe ba raxasu fexe ba utiliser gel ba pare éviter ab attroupement yi ah, éviter lo xamanteni ni mën na ñak dal ñu mën ko ñu mën ko bay éviter